waaw comme ni ngeen ko gisee les policiers les les forces de l'ordre sont en train de euh, se préparer Nous ngi pour gazer presse comme ñii ngeen ko gisee yéen ñëpp ñi ngi pour gazer presse Nous te xam nga lii moom jaaduwul amul fenn benn dëkk démocratie bi nga xam ne ngi gis presse bi nga xam ne libre te te amuñu benn possibilité ñu xoolal gis ngeen yéen ngi gis tiir yaa ngi nii ñoo ngi di gazer la presse ñoo ngi nii di gazer la presse nii yéen a gis tiir yi nii ñii Sénégal kenn xamul lan moo fi am Sénégal kenn xamul lu fi am Sénégal kenn xamul lu fi am yéen gis la gis lacrymogène yi nii nii lañ koy nii lañuy def lii dafa ñaaw lii dafa ñaaw xoolal presse boo xam ne mënu sax def liggéey dégg explosion yi yéen a ngi dégg noonu ñu ngi nii di gaze presque lii dafa ñaaw lii ñëpp ko war a dénoncer képp ki nga xam ne é, citoyen muy citoyen simple muy ñëpp dañ ko war a ñaawlu dañ ko war a ñaawlu lii dafa ñaaw ñu ngi nii di gaze la presse xoolal ma policiers yi bu au lieu que ñu nekk ay force de l'ordre ay force du désordre la ñu mujjee doon ñii ñu ngi nii amuñu lenn lu ñuy def lu dul xoolal ñi nga xam ne ñoom ñoo war a relayer information bi te képp kuy sénégalais da am droit à l' information képp kuy sénégalais la da am constitution bi moo ñu may ñëpp da am droit à l' information képp kuy citoyen te léegi mënuñu sax ñi nga xam ne ñoo waroon relayer information bi mënuñu ko sax relayer ñu sax joxe information bi correctement ndax policiers yi nga xam ne ñoo nekk fii ñii au lieu ñu nekk ay force du de l'ordre ay force du désordre lañ ñii ñoo fi woon nekk nous ñuy wax ni dañu des chaque fois que nous avons que loolu la ñuy opposition avons Nous avons dit nous avons institution yi ndax avons dafa ñaaw Nous kenn xamul lan nous avons xamul lan la avons dafa ñaaw nous ni comme si nous amuñu droit exercer li nga xam ne moom mooy di suñu liggéey te defuñu lenn lu dul exercer li nga xam ne moom mooy liggéeyu gaay liggéey boo xam ne bu pour mu jaar yoon ñu dem ba source ci information yi jëli information yi fi mu nekk te ñoom ñoo ñuy empêché dëggantaan ñun ñu relais information gis nga xoolal man lay viser nii di ma dóor en direct man lay viser nii di ma dóor en direct waaye man ragaluma la du ma dellu ginnaaw man sama liggéey laay def ragaluma la te du ma dellu ginnaaw lii jógee yéen lii dafa ñaaw xool leen ñuy groupe loo di ñëw fii pour xool leen li fi am lii moo am si kër góor xoolal ñu ngi wëri pour jéem a encercler eh gars ñu ngi wëri pour encercler leen foofu ñu ngi wëri pour encercler leen côté boobu ñu ngi wëri pour encercler leen côté boobu bu leen nangu lool lii dafa ñaaw lii kenn xamul mooy lan kenn xamul mooy lan maanaam suñu kaw la ñuy visé du ñu tiire nii nii nii mooy maanaam ñii suñu bakkan sax la ñuy attenter dëggantaan lii dafa ñaaw c'est ça qui sa passe au Sénégal et on nous on nous Sénégal pays de droit la amul ban droit moo fi am ban droit ban droit ñu naan ñu état de droit la ban droit moo am Sénégal ban droit ay journalistes yi nga xam ne la liberté de la presse donne tout simplement la crédibilité à la liberté tout simplement et à la démocratie amul leneen li nga xam ne mën nañ ko ci wax lii dafa ñaaw ñii ñii ñii ñii du ay policiers du ñu ay force de l'ordre ñi ay force du désordre lañ ay force du désordre lañ il faut ñu wax ko te ñu ñëpp oser wax xool leen ñu ngi jéem a encercler journalistes yi ngir lan ngir lépp pour tasaare leen ngir lépp ñi ngeen bañ a jot information waaye lii kenn xamul mooy lan kenn xamul mooy lan kenn xamul lii mooy lan mooy xoolal xoolal li ñuy def xoolal li ñuy def xoolal li ñuy def xoolal li ñuy def xool leen rek li ñuy def Sénégal lii moo fi am après ñoom ñooy génn naa ñu ay état de droit ana état de droit ana état de droit dans tout ça lol la bëgg xam kan moo ñu mën wax li li mooy li état de droit kan moko mëna layal ci àddina kan moko mëna layal kan kan. oh massa xoolal moom it sax mom mom tamit amna ci ay gàllankoor lenn ci ay affaire yi ni xolal ma li xolal ma li man lañu ko wax ni mo jël ni ni sama tank je vais pas bien mais maa ngi sant yàlla ñu liggéey dañ koy def jàpp nañ Touré ba bàyyiwaat ko man xoolal never never fucking laa wax nañuy dem gis nga xoolal moo dooru baa ngi noonu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp a war a nekk su si si consternation ci par rapport ak ñii nga xam ne condition yii ñuy teg ñii ñooy force de l'ordre ñii la Sénégal la ñuy wax force de l'ordre ñii ñii la ñuy wax force de l'ordre xoolal ni ñun dem nañ ba dugg ci bir koñ bi ba légui ba léegi ñoom ñi ñuy top di ñu door ay ay ay ay grenade lacrymogène li amul fenn li kenn xamul lan la fi gaay kenn yorewu fi xeer kenn kenn mënul sanni kenn yorewu fi xeer boy sanni kenn yorewu fi dara micro lañu yor ak ay caméra kessé amul benn acte de violence bi nga xam ne posé nañ ko parce que ñaa ñëpp a ngi live sàng ba tey amul benn acte bi nga xam ne posé nañ ko ala ala dans le sens de de de de rompre public waaye ñoom li ñu gis ni moom moo moom moo leen mën a neexal moom moo mën a bégal seen xool dafa mel na moom mooy lii jàpp di toroxal sénégalais yi nii de donné lii moom mooy ñoom seen rôle xool leen xol dan dañ top ba ci retranchement yi gëna gëna xat mhm. maam ci rokk koñ yi gëna xat lañ top ngir ngir gën ñu mëna gaz tenue, tenue. Tenue, tenue. waaw. waaw gars yi ba léegi gars yi ba léegi ñu ngi doon amal bu ñu doon. waaw. waaw. waaw. chers journalistes, vous qui êtes là, déglu seen métier. informé juste et vrai. Mhm. ñun ànd ñu ak liggéey ànd ñu ak kenn. dëgg la ñu travail mais bu ñu ko teewee. bu nekkee la commencé dëgg la sama tànk lañ ko dóor. oh est-ce que tu vas bien. je vais bien mais du question que ñu devez bien ou pas. donc dañuy continuer dañuy continuer. Mhm. voilà gis ngeen xoolal moom il est blessé malgré qu'il soit blessé moom mi ngi woo ñëpp ñi nga xam ne pour ñu continuer di informer libre librement ak ak ak joxe ay information yu juste. lii dafa doy waar lii moo xew Sénégal lii nii moom moo xew Sénégal kenn xamul kenn kenn kenn kenn xamul lan moo fi xoolal. mi ni, nii ni, ngi nii instant bi mënatul sax taxaw mënatul il ne peut même plus il ne peut même plus marcher correctement léegi nag ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne dëkk bii nii nii moom mooy dëkku démocratie quoi dëkk bi nga xam ne exaction yu mel nii moom moo fi am dëkk yi nga xam exaction yu yii nii nii je le répète encore une fois moom moo fi am lii ce sont des dérives graves te képp ki nga xam ñëpp ñi nga xam ne ñoom protecteur des droits de l'homme ak yooyu noonu yëpp ak les défenseurs des droits de l'homme dañ ci war a jug dañu war a jug wax wax ci grossement ko te ñoom jug tamit wàcc ci ci ci ci mbedd bi euh, solidariser ak ak presse bi pour dëggantaan xeex lii nii ngir mu jug fi ndax une presse libre et est in indispensable dans une démocratie loolu kenn mënu ko euh, une presse libre donne tout donne tout simplement son vrai visage à la démocratie loolu kenn mënu ko naatable lii nag moom ñun duñ ci duñ ci yam dañuy juk continuer di xeex ngir wane information bi nga xam mom moom moo ñu yitteel te mom moy droit bi nga xam sénégalais yépp dañ ko am ci droit à l'accès à l'information faut ñu yeggale leen information yi ba ñom ñëpp ñu jot quel que soit li nga xam mom moom ñuy dal waaye ndax lii dafa daw yaram gis nañ ko moom moo ngi nii ay ay collègues am ñi mu àndal ñu ngi koy wax di ko jéem a euh, convaincre ngir mu dem hôpital faju ji waaye moom moo bañ moo lànk nee na day continuer donc lii nii c'est un message fort à l'endroit de tous les journalistes du Sénégal et du monde euh, en général ndax ñoom dañoo war a jug ngir lii li xam ne mooy daw Sénégal mu jeex fi benn yoon une bonne fois pour tout léegi ñu ngi xool ñu def jëm ko dañuy moytu rek dañuy moytu mais di empêché wu ñu def suñu liggéey mais dafa dafa jar ñu moytu rek dañuy moytu parce que également biñ nangu doo gis ñu lay tiire nga taxaw nga ne nañ tiire sa kaw réellement dañuy moytu parce que ka binin donc loolu nag mooy tax ñuy moytu ñuy moytu mais ça ne veut pas dire que nag li ñuy def ñemewuñu ko suñu métier dañ koy exercer dans toute sa rigueur. non non non non yóbbu leen ko yóbbu leen ko yóbbu leen yóbbu leen kaan dem nan nan dóor nan nu ray ah. ñi ngi ñi ngi nii di ko jéem a évacuer ngir mu dem fi nga xam ni moom mooy sami municipal bi ngir gars yi traité ko waaye li li nga xam ni moom moo moom mooy inquiétude ñëpp mooy ndaxam ñun dañ policiers yi daanu bàyyi ñu jàll ñu dem évacuer ko waa sami prendre ko en charge mais lii moom kenn xamul lan la ci Sénégal kenn xamul lan la ci benn àdduna lii dañ doon wax ne c'est une dictature rampante mais c'est une dictature debout ndax dans un pays où la presse est muselée y a plus rien y a plus aucune liberté dans un pays où la presse est muselée y a plus aucune liberté c'est une dictature tout juste tout court qui porte son nom et qui s'exprime dans toute sa toute sa euh, euh sa facette machiavélique parce que lii munuñu ci kenn mënul gànna yorul dara yow xanaa information bu muy joxe bi muy joxe nga bëgg nga ragal ba à à un tel point que ngay def affaire yu ñàkk fayda yii nii affaire yu barbare yii nii parce que lii mënuñu ko tuddee neneen mënuñu ko décrire neneen yàlla bu ñu dem ba foofu sax di nga bëgg évacuer ñoom ñu ñu retourné waat di dooraat suñu kaw ay ay ay lacrymogène parce que lii moom kenn xamul kenn xamul donc ñii xam nañ ni fu nekk mun nañ fa àgg ak ñun du moment que dem nañ ba ñi koo xam ne yorul arme yorul dara du dul caméra ak micro nga dem di ko dóor ay lacrymogène ce qui veut dire que tu veux tout juste le réduire au silence te réduire au silence nag euh, moom maanaam mun na jël fànn yëpp mun nañ dem ba faagaagal suñu bakkan parce que lii dafa jéggi dayoo lii moom dafa jéggi dayo xam naa ni te da ñu xool rek naka la ñuy évoluer ba yegg suma assistance ngir suñu mbokk mii nga xam ni ñoo bokk corporation bi ñu nekk waaye au delà suñu mbokk citoyen sénégalais te ah, Sénégal